mër maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñi ngi si euh, site bi euh, di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne préparé nañ combat bi ça fait presque neuf mois euh, fi toll je crois que wax amatul jëf moo jot te samedi la ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu si ko ñaan moom mi moom ndam mu may ñu ndam waaw mais fi mu toll daal loo si mën a dégg mooy booy ñaa pare na te léegi si kanam dina leer incha léegi léegi ñu xool ñoom dañoo gis ba ki nga xam mooy Lac de Guiers moom dañoo xam ne moom bul maam wàllu défendre lay gën a di defee Boy Niang tamit mun ko xoolee ay kombaam day jël temps yaa ngi dégg ba xam yéen bu gis baal Boy Niang dañuy dégg si ay waxam mu naan man sama sama décision nekkul pour kii ba xam yéen loolu loo si xalaat. waaw di wax ne xam nga gars yi dañuy wax Lac de Guiers dafa défensif Lac de Guiers défensiful Lac de Guiers il attentif xam nga ku défensif ak ku attentif du la dageer dalay xaar nga def défaut mu jiyaloog yow def li mu bëgg booy ñaa jiko boobu la yore mais nag lamb ji ñu jëm nii il faut que ñu changer stratégie yi parce que mbër dafa am fu mu bëgg dem la dageer dafa am fu mu jógee am fu mu bëgg a dem moo tax li ma la mën a wax daal mooy combat bu neex la incha allah samedi mbër maa ngi lay bégee waaw merci jërëjëf jërëjëf